moo yitteel secteur privé bi ni askan wiy dundee daal di gën a ñoŋ docteur Cheikh Kanté mi fa teewaloon njiitu réew mi teewal fa premier ministre ak ministre du budget itam loola la wax nee na faaw ñu fexe ba thème bi di aw na ownership appropriation ñu daal di koy doxal ci Sénégal maanaam liy meññe ci réew mi doomi réew mi di ko liggéey waa réew mi gis ci seen bopp réew mi quotidien nee na docteur Cheikh Kanté mooma njàngale mu am solo la def démb ci assise MEDES réewi Afrique yi Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi teewoon ci yooyale assise itam nee na mooy RNB ñu wutale ak PIB ñoom ñépp nag ñoo ànd rafet du taxawaayu MEDES ak njiitam président Mbagnick joppa ci réew mi rawatina ci wàllu koom-koom ci gàttal daal état bu Sénégal nee na MEDES ak njiitam ñoo ngi bay seen waar ci réew mi di Sénégal le témoin itam dellu si ci assise MEDES yooya ne ñu docteur Cheikh Kanté kay cours magistral la fa def njàngale yu am solo jëm ci d'état bi taux yi mu jàpp ne dafa diis gann te banque yi di ko teg ci kaw entrepreneur yi ci Afrique 24 heures nañu Mohamed Boun Abdallah Dionne ca yooyele MEDES joxoñ na modèle bu Norvège ngir ñu sukkandiku ci ba mën a jëm kanam ñu des ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ndax bés bi le jour nee ma ngay waxtaan ak Aly Ngouille Ndiaye de te boo mayiwul dañuy lëngoo fas yéene jàkkaarloog Amadou Ba Amadou Ba mooma ci xët gu njëkku Le Quotidien mooy joxante loxoog Abdoulaye Amadou moom mooma sax dalal na ko démba moom jiital conseil économique social et environnemental l'évidence ne la waral Abdoulaye Daouda Diallo fas yéene topp ci ginnaaw Amadou Ba du sagoom de ñàkk pexe la ndax pression lañu ko teg am itam ñu ca dox ay tànki jàmm li ko président Macky Sall dikk nag yéenekaay bi dikk na ci waaye jàpp ca ca pandaw la ne apériste authentique yi daal danu leen a sacrifié moo ki dëgg sax mbaadu Amadou Ba direct news mel ni woowalee laaj lay samp ne ndax ci biir Benno Bokk Yaakaar le tout sauf Amadou Ba la togg maanaam lépp ba mu des Amadou te gaa yaa ngay liggéey ca suuf buñ sukkandikoo ci woowale yéenekaay l'observateur ne ko fi xeexoo am dëgg mooy ci biir APR gaa yaa ngay defante lu metti maam booy jaawoo mooy janook duura duuduka ak i ñoñam ca sigi coor ak la ko wër ca Linguère Aly Ngouille Ndiaye mooy xeex ak Samba Ndiobène Ka xeexit ku mayul dana am diggante Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Oumar Anne ca Fouta ak la ko wër buñ sukkandikoo ci l'observateur waaye fitna googa di xeeñ ci biir Benno Bokk Yaakaar Sud Quotidien nee na Arouna Dia ma nga cay dox tànki jàmm ma fi mu ne kay sapeur pompier sax la ko yéenekaay bi méngaleel ne fu am lakk ma ngi koy jéem a fay Amadou Ba moom bu mayuwul présidentiel bi nu dëkkmal dana tàng jër niw safara ci moom Sud Quotidien moo ni jàngatee ne doxam jëm ca palais du yomb Sud Quotidien li ko waral mooy dana janook fippu gi am ci biir Benno Bokk Yaakaar APR rawatina ndax ñu bari ànduñu ci tànneef gi ko ñeel waaye it taxawaayam ni ko war a wéyal gis-gisu président Macky Sall ak politique am ci mim réew jamono ji ñu bari bëggee coppite ay candidat yu gàddu coppite enquête yéenekaay bi bokk na ca ñoom Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany docteur Abdourahmane Diouf Thierno Alassane Sall ak Abdoul mbay yéenekaay bi ne ñii seeni gàllankoor mën na ca bokk parrainage waaye itam li nu wéet nekku patt enquête gisal leen weneen jafe-jafe mooy seen tasaaroo ci jamono ji ñëpp yi booloo ci kuréel may Maimouna Bousso bokk ci kuréel politique bi di Yewwi Askan Wi ci biir yor yoor bi ma nga naan lu ngeen mën a waxit élection présidentielle moom kenn mënu koo tëgg ci Sénégal te candidat bi gën a fës gën a siiw gën a am ñam bokk Bousso dolli ca ne sénégalais yi dañ leen a bàyyi ñu tànnal seen bopp que ñu bëgg mu jiite leen te itam ngir réew mi am dal war na noo fexe tëgg élection yu ñëpp di bokk parrainage mi tax a bokk ko Quotidien nee na gaayaa ngay dawee fu ne di ko wuti course informelle au signatures nii la ko yéenekaay bi fësale ci xëtam gu njëkk xët googa ñu fekk fa itam président Macky Sall mu def taxaw seetlu ci tolluwaayu finance islamique ci Afrique waaye joxe ci njàngale mu am solo démb buñ sukkandikoo ci enquête mi dellu si ci xew-xew ci Sall ndax la tribune nee na gàttam gu mujj ëllëg la koy dagg séddoo ko gaay yi ndax ca lay def remaniement indi ay coppite ci gouvernement bi gouvernement booba Lat Diop dañ ko caanar a dugal waaye du lu ko gënal ndax lonaas la taamu woon des buñ sukkandikoo ci le témoin yéene bi nekkaay ma wax leen li tax Lat Diop bëggoon a des ca lonaas mooy koppar yu bari ya fa ne fàttali ne la ñuy góob ci koppar at mu jot toll na ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci milliards te loolaa ko dàqal gouvernement ci gëti témoin le mandat ne gouvernement de survie nag ci lan jëm gannaaw ba nu Amadou Ba ki ministre am indilee gouvernement de combat Amadou Ba mooma nag ndax président Macky Sall ñeme na ko wuutaleek Abdoulaye Balde ca primature wii laaj la réew mi quotidien samp yéene kaay bi dinu xamal tam ne liggéeykat yi gox-goxaat yi fas nañu yéene itam sumbu gerewu téeméeri waxtoog ñaar fukk ndax gouvernement bi indiwul benn saafara ci seen i ñaxtu moo ne ñaxtu yooya gàllankoor na mairie yu bari les échos nañu mairie bi gàllankooru kay mooy bu caaroy sur mer ndax meeram ba maître El Mamadou ba tey mi ngi ci loxol yoon Fadilou léegi am na ay weer libération ngi ñuy xamal ne tey dana janoog juge bi waaye ñaari mandat de dépôt yéene baa ngay fàttali ni gàllu na ci ndoddug Fadilou Keita bu pastef pastef mooma kalaame ji na ca cour suprême tas gi nu ko tas moom parti Ousmane a mooma nag xam ni recours bi mënta dakkal yëf yi moo tax mu fas yéene dugal li naan procédure en référé ngir li état bu Sénégal bëgg du antu état mooma la itam yóbbu nañu ko ci kanamu cour de justice bu CEDEAO ñañ ca tegoon loxo le quotidien nee na mujjee nanu leen a bàyyi ñuy jëm ci géej gi nag ba tey bàyyeeguñu ndax libération ngi ñuy xamal ne diggante ñeent jàpp fukki fan ak ñeent weeru septembre fukki gaal ak juróom-ñaar bawoon nanu Sénégal teere Espagne le peuple quotidien ni ko kaay ma dolli la ndax ñaar téeméer ak juróom fukki migrants sénégalais teere nanu ca Maroc Maroc googa seen buur Mohamed VI tàmbali naa liggéeyaat dëkk ba gannaa suuf sa yëngu woon Dakar Times nenu programme reconstruction maanaam defaraat noona la ko tuddee moom day daa juddu ko sax mu tàmbalee yëngal di wone boppam réew mi tv nii la réew mi quotidien xëyee wax ci moom ne Télé askan wi am na benn at tey moom mu jeeju du ëpp ñam réew mi quotidien nee na la mu nu dencal moo dàq la mu jox tele bi ci kanaal canal 108 teente réew mi quotidien nee na mi ngi dox wutali ca kaw li tax keroog sunu gaynde gayndey doxle wuno ba nuy dajeek Algérie stade nee na bokk na ca li nampalis ñëwul la ak Boulaye Balla Gaye mi des di doon buuru làmb